Euh, ñi xam la ni vraiment euh, génn àddunaam léegi di ko ñaanal yàlla yërëm ko tax xaare ko àjjana te jéggal ko ndax nekkoon na koo xam ni vraiment da daan bégal nit ñi feebaram bi ku ne gis na sénégalais yi taxaw bi nga xamante ne am nañ ko ci waaye nag euh, ñu koy jaale aussi tamit sunu sister boobu di bébé Eva ak sunu frère boobu di Fadel vraiment di leen jaajëfal bu baax a baax ci noonu nag ma dalal sama frère Pawlish Mbaye fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ci mbir mi Liss maa ngi lay nuyu. dina fay dina la di la di la jaale liñ bokk ñun ñëpp ah parce que jullit morom jullitam bu bu gaañoo surtout maa koo xam daan naan ko si gil ndigaale yaa doo na ko suñu borom xaare àjjana suuf ci kawam yàlla na ko yàlla di jaale njabootam di ay mbokkam di jaale famem di jaale képp ku nekk ci wàllu théâtre wala nga nekk ci wàllu musique wala ci loo mën na nekk rek maa ngi koy jaale yaa doo na ko suñu xaare àjjana suuf ayo ci kawam yaa ngi wax yaa ngi sax waaye yal ko suñu borom xaaree àjjana suuf ci kaw. d' euh, euh, euh, bu ñu ñëwaatee ci feebaru wa ñu gis am na ay yoo xamante ni jëloon naa la interview yi nga ci doon wax ci cadre feebaram ket bi majal yi mu mel ni tey bi mu gaañoo man su ma retourné bu paasee ndogal suñu borom dama naan Pawlish la ma waxoon daanaka looloo am. Mhm. Ah, parce que nit ku ne man duma ni suñu borom mooy reyee suñu borom mooy xool feebar teg ko doomu sunu borom mooy xool nattu teg ko doomu aadama sunu borom mooy xool nga ngëneel teg ko doomu aadama sunu borom mooy xool bànneex teg ko doomu aadama sunu borom nag mooy xool li ko neex mu def sunu borom mooy xool li ko neex mu lu ko neex mu teg ko ci jaamam mais yadoo yàllaa ko sunu borom a ko rey dafa nit ñoo xam ne bëgguñu bët dafa am nit ñoo xam ne sutura la ñuy génnee àddina dafa am ñoo xam ne ci sutura la ñuy deewee ci àddina. waxuma li li mu génn yàlla yàlla moo ko rey. mais li ko gën a li ko gën a jokk rey. li ñu ko génne image am génne ko télé ñu di ko ketal lamine bu ne dugg ci wax bu ne dugg ci dafa am nit ñoo xam ne sutura la ñuy génne àddina. sutura la ñuy feebaree ba génn àddina yàlla mayewul dafa able yàlla lu mu teg nit ki rek suñu borom at moom nit ko attan na ko. mais ci kaw sutura. Mhm. nit day sonn bay souffrir ñu dagg ñaay tànk yi dina muñ ak sutura dee sutura. mais ay xale yu ndaw ti magum jëm di ko kettal làmmiñ bu ne di ci dugg wax ju ne di ci dugg amaana lu baax ngeen ci jublu mais après day retenir lu bon parce que ki nga ki feer bu ci xuloo jubee rek wax ci lu ñaaw jubee rek jàppal ni kooku àddunaam day yàqu waxoon naa la ci biir wax nee naa ko xaw ma kañ day doon xaw ma lu am yàlla rek mooy xool li ko neex mu def mais yaa doon li ko gën a rey ci la bopp nit kenn du ko weer kenn du ko toroxal kenn du xaawi suturaam dafa am nit ñoo xam ne dañoo bëri kersa dafa am nit ñoo xam ne feebaru jàmm dañ ciy business nit ñoo xam ne feebaru jàmm dañ ci profité ni yaa baax orkani baaxoo yaa ngi ciy bëgg sa tur bëgg cee siiw nit ko feebar xamoo méttitam fu mu méttoo xamoo lu muy xamoo lu ko méttitam fu mu toll nga tiim ko télé yi tiim ko rajo yi tiim ko nga di ko kettal koo xam ne boo di kee nitu kersa la billaahi du dund at mel ni sax ci sa biir wax doon nga ma wax ni ma xaalis boobu dañu ñëw est-ce que xam nañu nit ki joxe 1000 francs ak ki joxe million xaalis boobu lan lay def ci moom. fois damay wax ñu naan kii wax yi daf lay ki mën nga génn nit ki mën nga feebar dërëm faj la. Mm-hmm. dërëm boobu lew na ci doomu jàmbur lew na ci ki koy joxe lew na ci ñaqam des fois nit yëkkati 10 millions jox ko ni te xamul ni 10 millions yooyu koy rey xamul fan la ko jëlee. Mm-hmm. xamul fan la ko amee xamul fan la ko lijjantee siiw la ci wut tur. nit ki yëkkati dërëmam billaahi wallaahi wa taalaahi dërëm boobu mën naa faj doomu aadama dërëm boobu la mooy dugg ci benn garab garab bi jël 60 millions dërëm boobu dugg ci dërëm boobu moo ko faj 60 millions yi faj ko. ay xale lañ bu ñu def suñu bopp mag. ay ndaw lañ bu ñu def suñu bopp. grande dame wala bu ñu def suñu bopp grand monsieur ay xale yu ndaw lañ ñun ñuy wax ñëpp kenn amu ci 15 ans wala 10 ans yi mag wala 20 ans yi mat kenn amu ko ci ci ñun ñëpp. Hmm. nanu xam ne ay xale yu ndaw lañ ay xale yu ndaw lañ ñun kenn xamatuñ ay xayra ay mag lañ lu ñëw dañ ciy dugg wax ju ñëw dañ ciy dugg ay xale yu ndaw lañ nañ xam ne ñun tollooguñu fenn demaguñu fenn egguñu fenn lii ñuy lii ñu yàlla jagaleen nit image la télé du dara téléphone sax day génne image image gën a yomb ci àddina duñ jàpp ni dañu génn image bëgg lu ñoo dugg ci kii feebar yal na ko suñu borom xaayee àjjana mais li ko gën a yokku rey tiim nit ko feebar ku ne di wax sa làmmiñ ñi naan maa ko wutal 60 millions ñi maa ko wutal 30 millions ñi naan ko dafa non àddina boo ci nekkee nit ko feebar suturaal li ngeen def ne amoo leen ci yàlla amu leen ci yoneen amu leen ci lenn tur ngeen ci am ba ci ba ngeen ci pare pare ngeen ci yéen a ngi nekkaat seen bopp lenn na ba mu nekk hôpital ba te kenn seetaatu kenn seetaatu ko kettan ngeen ko am ngeen ci tur loolu jeex na tey ngay gis ku ne takk sa su kolu def say wee def sa ay lanti di di jooy te billaahi wallaahi li ngeen di tey bu leen waxoon yaadoo doo boo xoon kaay toog wettali ma kaay taxaw une minute rek ngeen sang ma dañuy bañ mm-hmm. bëggal amul foofu mbëggeel amul foofu tur moo fa am ak wanewu ak gis ngisal mm-hmm. àdduna moo àdduna moo àdduna dafa dem ba yàqu kenn xamul nit ki moo bëgg nit kenn xamul nit ki moo fonk nit lépp ci télé nit ki mu nga feebar feebar di sukkuraat nga kettal ko te sutura billaahi wallaahi suñu borom rus loolu nga ko defal mm-hmm. suñu borom yëkkati ko mm-hmm. te yaa ngi wax lu am solo actuellement di gis ñi dem loué ji oto ñi ñëw jooy ku nekk actellement yaa ngi jéem a teg sa programme pour mën a ut fekk xeetu kanam gu ne kanam gu rëy kanam gu ndaw kanam gu yam kay ngay gis xeetu kanam gu ne di jooy te jooy yoo xam ne buñ jib fa bu ñu rom bu ñu bu ñu génnee koñ yaadoo seen jooy jeex na ñu nekk ci leneen tey ngay gis ñu yokkante na xoolal li kii indi xoolal li diw indi xool li kii indi xool kii indi am na ñoo xam ne feebaru feebaru ah, yaadoo bi dañ ciy souffrir ba génn dañ ciy souffrir ba jeex mm-hmm. waxtaan nañ ci nee ma li ma gën a métti mooy feebaru yaadoo bi. waaw dëgg la li ma gën a métti mooy Pawlish feebaru yaadoo bi moo ma gën a métti. Mm-hmm. man ko suñu borom tege nattu bu amee natt nañ ci nañ ci waxtaan nañ ci rek weer bi passé. Mm-hmm. mais tey nit ki tey mënoo bokk nit fi ngay liggéey nga bokkoo bañ mënul nekk. Mm-hmm. mais ki génn àdd génn àddina yal na ko yàlla xaar àjjana yéen ñi dem ci dëj ba tey ngay gis nit ko foo ku ne. da ngay gis nit ku puu ko rek da ngay gis nitu showbiz bu ne ci àdduna te li ñuy def gëmuñu ko bëgguñu ko xamuñ sa li ñuy def tey tey tey ngay gis image tey ngay jël image yu a gis ci àdduna tey ngay nit ki tey mu def kolam takk ay veram jooy te bu jàddee ko fàtte nañ yaadoo ñu ngi ci leneen tey lañuy tey la ñuy fàttaliku yaadoo ginnaaw suba ñu fàttaliku yaadoo ginnaaw suba ñu fàttali yaadoo quatrième jour bi seen xel génn na ci yaadoo ñi bàyyi nañ Sidy ñi bàyyi nañ Wally ñi bàyyi nañ Pape Diouf ñi dañ di nga koy fàtte mhm. kon nga xam ne mbëggeel amul foofu yàlla na ko suñu borom xalaat jëna di yokk yaayam mu gën koo may xolu muñ yàlla xaaree ko àjjana yadoo mm-hmm. yal na la yàlla suturaal mm-hmm. na la yàlla taxaw ci àddina fi daw ci ci darajaay Seydina Muhammad mm-hmm. yal la yàlla taxaw yal na la yàlla may sa bàmmeel sedd guy yaatu leen nañ ci darajaay yonent bi yal na la yonent bi teeru ci darajaay Seydina Muhammad nañuy bàyyi xel ñu ay xale lañ ay ndaw lañ bu ñu def suñu bopp mag ñu def suñu bopp ay kilifa ay xale yu ndaw lañ tollooguñu fenn nit yéene théâtre ba génn àddina kenn xamul ko lu bon nit yéene ba bàyyi kenn xamul ko bon ku ci xoolal suñu papa bàyyi lii ba tey mi ngi ci théâtre kenn xamul ko dara xoolal suñu yaay euh, euh, kii sën xoola saa di dafa am yoo xam ne ay ay xale yu ndaw lañ tollooguñu fenn site internet télé ngeen foog ni ñun ñooy ne high level duñu dara lii gën a yomb téléphone day génn image léegi ñëppay génn image léegi da ngay gis xale bu génn image nekk ca kaw kaw image kese la te image du dara amuñu ci alal amuñu ci xaalis amuñu ci yàlla amul benn lu ñuy wax amul waxuñu ci lenn lu jëmale askan wi jëm kanam lu du yàq nit wax ci nit lu ñaaw nga am ay vie kese moo ci muy man di keneen ak keneen mhm. ay xale yu ndaw lañ aussi di nga gis suñ ko ni ku ne dina jéem a jug def ay seede xam naa ko la ma moom suñu ànd ba ba mu jaaree fii ba mu waxee lii actuellement ku ne di nga gis mu jéem cee def ay seede nit bu deewee moom feere seede ba danañ ko amul kenn ko seede lu lu lu baax lu lu lu lu bon lu baax xan koy la seede la ki génn àdduna mu génn àdduna ay waa këram ñoo ñàkk kenn ñàkkul ay ñoo ñàkk nit tey dina dina dee ci dignité dafa am nit ñoo xam ne caméra jigu leen ñu ngi bëgg génn tele Camara Jigu yaadoo mii te ko ko waxoon tey tey billaahi wala 2024 du la fekk du ko gëm 2025 du ko fekk du gëm du ko gëm ci àddina xam nga yàllaay karim yàllaay tegal nattu yàllaay tegal feebar mel ni ko gën a yokk rey nga tiim nit ki di ko ketal ku xuloo bi di ci wax ci bët yooyu sax mën na laa rey cat yooyu mën na laa rey nekk ko 30 millions nit ki mën nga feebar suuf sukuraat bay waa ji génn àddina dërëm suñu borom rus dërëm boobu ñëw amul caméra amul télé amul dara nit ñi dañoo jàppee télé mooy dimbali télé mooy gën a rey nit xanaa xamoo télé ku dee télé la rey ku dee site internet la rey commentaire yi am na bët yoo xam ne seen kanam baaxul seen loxo baaxul lu ñu commentaire suñu borom yi yàq ko dërëm am na ñoo xam ne ñu ngi indi 10 millions pour faj nit 10 millions yooyu mooy bi mooy faj doomu aadama ay xale ndaw lañ nit ak am ay milliards ba tax du ñeew ma kenn ci àddina àdduna dafa metti nga ñàkk day day metti ci yow nga am mu gën a metti ci yow kon àdduna neexul mm-hmm. àdduna du kër tey ngay gën a am gën a souffrir nga am tey àdduna gën a metti da ngay am alal am alal am cinq milliards am nga am problème mu quinze milliards mm-hmm. nga ñàkk suñu borom di la suturaal ngay muñ sa ñàkk amul kenn ko am alal xanaa xamoo doo yóbbu nit safara alal day taxa nit def lu bon soo ñàkkee ci ngay gën a gëm sunu borom nga xam ne yàlla la teg natt bi boo amee da fu bu dalay dal doo tala julli doo tala def lu baax amul benn alal amul benn borom alal c'est rare borom borom alal bu tiim sa sijaada di julli jàpp ne lépp alal la mm-hmm. bu julli sax alal la booy def lu baax sax alal la sooy fo sax alal la nit a ngi ñàkk ci ñàkk ñàkk suñu borom mu génn àdduna suñu borom yóbbu ko yóbbu kooku ñàkkam nangu na ko ñàkk na pauvreté ñàkk na li ko borom teg di jaamu yàlla borom alal mu soogi borom alal c'est rare borom alal di jaamu yàlla ni ko waree ko mm-hmm. jàpp ne lépp alal la koy faj alal fajul dara nit ñi nañ delloo suñu ci yàlla mm-hmm. ku li nafsin say xatin mawti nañ delloo suñu xel suñu borom mm-hmm. yàlla mooy karim yàlla mooy yàlla yàlla moo nu sàkk ñun ñëpp yàlla mooy xool li ko neex mu def yàlla bu neexoon tey kenn du yeewu kenn du fanaan bu nu yàlla mayee ñu yeewu di fanaan nan ko doyloo suñu borom nañu xam ni àdduna du kër àdduna de àdduna jeexul de nit ñee jeex mm-hmm. àdduna ba tey nit ñaa ngi dee gisoo ñun àdduna di tukki nit ñee jeex de àdduna jeexul de mm-hmm. nañ delloo suñu xool ci yàlla nañ xam ni alal fajul dara alal fajul dara ci àdduna fajul dara boo amee alal da ngay gën a ñeme suñu borom mm-hmm. da ngay gën a sonal suñu borom da ngay a def suñu borom lu ñaaw da ngay gën a def suñu borom lu bon dangay ngay am un milliard fawee ko mu jeex cakkaay nekk ci lu bon ci bàyyi taxawaal def ci lu bon jée ci lu la lu la saf jigéen yomb la ngay xeet lu ne xeetu bon gu ne lay yeew tukki yomb la lu bon yomb la nga dem ci màkk nga foog ni màkk googu ngay def te xamul ne yaa ngi puukari ci màkk gi yaa ngi wane sa image def say poqotaan def sa tetuwe taxaw tiim kaaba gi yàlla digaale lool sunu borom boo ñàkkee la lay gën a mën a wormal ci li nga ñàkk nga am suñu borom di lay gën a seetaan seetaan di la gën a dugg nañu na nañu xam ne dee am na dañu xam ne àdduna du kër yaadoo yàlla na ko suñu borom xaare àjjana su ooy ci kawam tey ñu gis ni euh, tey maanaam nit ku feebar ñu bari dañuy samp laaj ndax jar na ketal wala jar na indi coow kii naan maa ko xam kii naan ñoo àndoon kii naan moo xuloog diw kii naan diw maa jàpp kii naan jàppul mu mel ni ñu def ko benn genre événement nit ki bu nga feebar nga ketal ko ci kaw ni koy ketalee te la bañ a tàkk dara bañ a tàkk ci sutura mm-hmm. nit yàlla rek a am nit ku ne amul nit ki mën nga feebar dërëm war laa faj ñu kettal la ket boo xam ne télé du tàkk image du tàkk dara du tàkk ñu kettal la ak ci sutura sutura suñu borom da bëgg sutura moo tax suñu la def guddi def bëccëg kettal bu ci amee xuloo am ci maa kettal kii cent mille maa kettal kii soixante mille maa kettal kii denc maa kettal kii te ñoom seen waa kër lañu war a gën a mën a kettal seen yaay amuñu kilim seen papa amuñu kilim fi ñu dëkk baaxul seen yaay gën a feebar kettaluñu seen yaay di kettal yaay jàmbur bëgg cee wane puukare bëgg cee wane baax baax amu fa dara amu fa puukare moo fa am ak sa bopp maa def lii maa def lii nañ delloo suñu xel ci suñu borom. nañ kii génn àddina nag ku doon ci def lu baax ak ku doon ci def lu bon nax na saa yi niil na yàlla rek moo mën a moo ko mën a seedeel jëf ngi mu ki fa fekk yàlla rek moo mën a seedee. tey ngay gis nit ku jooy tey ngay gis nit ku bi gémminam tey ngay gis nit ki yaa doo génn àddina te billaahi wala tey ngay mës a gis loo mës a gis àddina tey jii ci dëj bi tey ngay gis dëju soo bi dëggantaan day te kii ñàkk ñàkk na ay waajuram ñoo gën a ñàkk